union européenne bi nga xamante ni moom moo pillé suñu géej gi ñoom dinañu nangu loolu à cette échelle buy permettre ñu jël jeunes yu bari yóbbu leen je crois que union européenne. bu ko su waat defoon nañ ko mais ñu bari ñëw ñu. <laughs> Issa ma bàyyi la nga poursuivre. voilà ñu poursuivre sax ak euh, beneen thème bi nga xam ne mooy topp muy wàllum tension politique ndax sànq maa ngi koy wax lu tolloog mille cent une personnes yoo xam ne ñoo nekk jamono ji ci kaso gi ñu dippee leen détenu politique maanaam ñoo xam ne wàllum politique moo tax ñu euh, jàpp leen gis nañu aussi mbiri Ousmane Sonko euh, tey yem ak fanweeri fan ak benn boo xam ne mi ngi ba léegi ci xiifal am ñeneen ñoo xam ne aussi même situation la ñuy dund ak moom d'abord une analyse globale de la situation cette tension politique Sénégal Amath Kourouma naka nga ko jàngatee tant que leader politique d'abord. waaw xam nga euh, li am ba fi mu xew si nii ba fi mu toll ak euh, la déclaration du président Macky Sall euh, au mois de de de de, de juillet. ne dootul nekkati candidat. ak euh, li fi xew yëpp dafay wane na rek ne le camp Sonko ak Sonko ci boppam dañu nekk sur dañu nekkoon ci benn réflexe réflexe de survie xam nga nit boo koy bëgg a mbéj. te yëgu ko dina di nga noo def mu jéem a défendre boppam moom la ñuy wax réflexe de survie mais réflexe de survie moo tax Ousmane Sonko discours am am nu mu demee. parce que tout simplement am na fu ñu ko bëggoon a yóbbu bëggoon nañ ko tëj mu sentir ko moo tax mu doon wax ni mu doon waxee te circonstances yi tax mu doon wax ni mu waxee warul mën a tax tey ñu jàppe ko un terroriste mbala ñu jàppe ko nit ku nga xamante ni dañ koo war a tëj éliminer ko ci élection présidentielle yi di di ñëw du yoon parce que tout simplement Sénégal bi ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko bokk defu fi lu nga xamante ni war naa mën a tax ñu interdire ko mu nekk candidat beneen bi mooy dañ ko doon accusé de viol génn nañ ne ne ne ne nekkatul accusation corruption à la jeunesse la même corruption à la jeunesse boobu dangay xool ki nga xamante ni moom moo utiliser benn employeur ci ci ci ci ci ci ci cabinet mais kooku lañu ñu war a wax ne ki mu utiliser est-ce que kooku am na âge bu ñu ko war a utiliser foofu wala déet kon bu ñu naan dañoo corrompre kenn ki it ki ki jël kii liggéey maanaam soxna su nga xamante ni moo jël Adji Sarr moom la ñu war a accuser de corruption à la jeunesse mais pas Ousmane Sonko ça veut dire que li ñu ko accuser du yoon beneen bi mooy dañ ko accuser de diffamation wax lu nga xamante ni warul wax dañoo war a dem palais génne ji le président Macky Sall mais loolu circonstance moo tax mu wax ko. appel à l'insurrection. waaw waaw circonstance moo tax mu wax ko Macky Sall le président ba mu ca tolloo en 2011 daf na woon dañuy dem génne ji le président Wade mais taxul Wade tëj ko kon tey bu ko le président Sonko waxee mu tëj ko kon moom lañ ko nanguloon bañal na ko Sonko te Sonko waxu ko pour. Euh, euh, salfaañe réew mi mais daf ko wax parce que tout simplement fa mu tolloon sentiroon nañ ña ngi ko ña ngi ko bëggoon a daan leneen li mooy ñi nga xamante ni dañ leen a tëj mais ay prisonniers le terme politique Sénégal waruta am parce que tout simplement nous sommes dans un état démocratique prisonnier politique ak état démocratique en àndul état démocratique peuple bi moom moo ko moom seul le peuple est souverain mag le président Macky Sall pouvoir bi ñu ko jox mooy la capacité de contraindre un peuple ak peuple bi jox ko obéissance loolu mooy tax pouvoir am mais pouvoir boobu du moom moo ko yor. état bi moo war a réguler. waaw peuple moo war a assurer la sécurité des personnes mais peuple bi moo ko ko jox. mais régulation boobu. warul la dem ba warul la outrepasser le droit. parce que ni mu demee ni c'est vrai que dem na ba président Macky Sall bëgg a rétablir les institutions mais ni mu ko bëgg a rétablir dafa war a ànd ak l'expression du droit et l'expression de l'apaisement parce que Sénégal ñun ñëpp a ko moom li fi xew juin naqari na ñëpp. parce que tout simplement nit ñi taal nañ fii am nañu ci dee ñu ngi koy déplorer ñu ngi koy naqarlu mais nag le président Macky Sall moom ci boppam nekkatul candidat war naa mën a apaiser réew mi li taxoon parce que moom dafa am ci situation bi xew benn part de responsabilité mooy ñàkk a déclarer tout sa candidature moo taxoon li xaw a jëngu yëpp yëngu mais bi mu déclarer sa candidature lépp tekk na kon moom part de responsabilité am part de responsabilité bi mu ci am ci xew yëpp ak ni mu tëj dafa rëy moo tax moom ci boppam war naa xam ne mille détenus yi politique yi ñu tëj du ñu ay terroriste du ñu ñu bëgg a taal Sénégal du ñu bëgg a yàq Sénégal mais ñu nga xamante nii la dañoo taxaw pour bañ parce que constitution bi dafa prévoir le droit à la résistance ñoom nag résister nañu le droit état du Sénégal gis na ne ni ñu résister baaxul mu war leen a daan mais daan yooyu nag dafa war a xam ne du yoon teguwul ci yoon parce que tout simplement nit ngi am nañu droit résister maintenant est-ce que am nañu droit rey kenn amul droit rey est-ce que nit am na droit taal kenn amul droit taal kon ñoom seen jëm bopp ñi nga xamante ne dañoo taal yàq bu fekkee ñooñu la dañ leen war a teg ci yoon mais ñi xamante ni nag politique kese la ay waxu politique la taalu ñu yàqu ñu ñooñu nag kenn waru leen. mais le grand parti oui non non je te laisse continuer waaye dugg ci grand parti le grand parti parce que déjà dañu gis buñ euh, wax sax grand parti kese Yewwi Askan Wi taxawaay bi ci war est jàpp nga que ni taxawaay bi ci waroon dëgg dëgg dëgg fi mu nekk nii euh, am nañ ko ginnaaw bu kenn ci seen i ñoñ euh, di Ousmane Sonko duggee kaso wala comme dañ koy tuddee peut-être ñoo xam ne xëy na mënatuñu dem ci xeex bi carrément xam nga barigo ci bartal kenn mënu koo teree wàcc maanaam le président Macky Sall kenn mënu ko woon teree téye le président Ousmane Sonko xeex nañu lu ne def nañ ko mujjewul fenn lu dul ñu téye ko maintenant la question ki se pose moom mooy ndax dañoo war a continuer le combat wala niñ ko doon continuer wala dañ ko war a changer. def beneen modèle de combat benn mode de combat bu nga xamante ni mën na leen permettre ñu am gain de cause. man li may wax mooy te man la engagé mooy aujourd'hui le président Macky Sall n'est plus candidat je crois qu'il serait urgent que Yewwi Askan Wi jàkkaarloog le président waxtaan ak moom. ñu génne Sonko fi mu ne. gis nga képp ku taxaw def benn genre non xam nga le premier dialogue man dama ko tegagum ne. dialogue bi dëgg dëgg dëgg dafa waroon nekk ci Ousmane la président Ousmane Sonko ñu dialogué pour li ko. li tegu ci moom yëpp mu jóge ci mais mënuñu woon jaloge à quelque jours du procès de Ousmane Sonko loolu métti na ñu bëri ci yeewi askan wi. gis nga dialogue bi dëgg tey moom la yeewi askan wi war a jóg teg beneen type de dialogue. ban type de dialogue dialogue pour la libération Ousmane Sonko. non dialogue pour lu bari dialogue pour lu bari xam nga dialogue bi bu ci euh, yeewi askan wi bokkoon am na yeneen points yu ciy dugg yu ciy duggaat. donc même parrainage bi dinañ ci dugg duggaat ci euh, maintenant li nga xamante ni moom am na ci solo trop mooy la libération de Sonko. est ce que ki table ji. ki ñuy dialogué jàpp nga que ni dina reculer. xam nga lan moo tax par ak fi ñu ñu fi ñu ëgg si nii ñu a dialogué moom pour euh, xëy na apaisement ak yonoon pour yow ñoom dinañ dina reculer d'un pa lenn dong mooy tax du reculer. Mhm. mooy mu jàppee Ousmane Sonko un adversaire ñu nekkoon ci duel Ousmane Sonko tiré bal mu dal ko. il a renoncé à sa candidature parce que événement yi fi am en juin mën nañu wax ne moo tax la ma le président Macky Sall reculé. Mm. maintenant bi mu réculer aussi il fallait que mu jël Sonko dal di ko fayloo nan la ko fayloo mooy mu éliminer ko ça veut dire que tu m'as mais je ne vais pas te je vais aussi te tuer bu fekkee ne le président Macky Sall loolu moo nekk ci conscience am kon dina jafe trop. ñu dialogué ak moom ba mu libérer le président. le président Sonko. alors monsieur Xuruma est-ce que terme déjà yi ngay utiliser est-ce que du jox dëgg ñi ñuy wax ni nekkatuñu ci politique on est maintenant euh, dans l'animosité parce que am na terme yaa ngi wax ni euh, ko dool bal mu kii ko. je sais mais juste pour ni nga ko utiliser ak ni nga ko waxee c'est juste pour confirmer na euh, dualité bu am instant yi ci espace politique bi te egg nañu foo xamante ne est-ce que dialogue dina mën a am te bu dialogue amee est-ce du jox dëgg ñi nga xam ne ñoo nekkoon daaw seen seen allié muy waa taxaw Sénégal wax ni. am na fu ñuy toll ci politique il est impératif ñu dem dialogue est en quelque sorte amoo leen benn regret ci dialogue bi ngeen bañoon bokk. non xam nga dialogue bi bañuñu ko. mais li ñu bañ mooy période bi mu amee def nañ fi ay dialogue yu bari ak le président Macky Sall mais lu tax dialogue bi période bi mu amee ñu bañ mooy dañu xaar ba mu ba ba quelque jours du procès de Ousmane Sonko ñu bëgg a teg dialogue mais man du ma nekk ci dëj ngay ngay ngénte à côté mënta ne. loolu bokk na ci li tax Yewwi Askan Wi bañ dialogue boobu maintenant le président xalifa Sall dañ ko koy nangul dañ ko koy nangul nag maintenant ñun suñu réflexion mooy que ni bu doon ñun duñ ci dem déjà le président mag euh, Malick Gakou président mali Gakou président Malick Gakou Euh, bi loolu xewee dafa suspendre toutes ses tournées yi nga xamante ni moom la waroon def ci réew mi yëpp activité bi mu gelé ko bàyyi yëpp ñu def capture Ousmane Sonko pour ñu fexe ñu libérer ko parce que boobu parce que boobu mi ngi woon ci mi ngi woon ci euh, procès procès boobu mu ñu woon nekk ci ba pare di nekk ci dialogue il fallait que lii terminé wu ba pare ñu soog a def dialogue kon dialogue bi dañ ko def ci période bu ñu ko warul woon defee je crois que période bii ñu toll nii moo war a gën a approprié pour def dialogue tournée bi ngay wax nii reprendre nañ ko. Issa Tine reprendre naat nañ ko xam nga tax ñuy reprendre naat ko. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que nous sommes à quelques encablures des élections tax le président Gakou def def tournée à Thiès. jërëjëf ci ñëw euh, mooy mooy l'autre thème sax mais mais adversité bu am mm-hmm. euh, ak euh, APR laay wax dama wax sax benn bopp APR wala taxaw. waaw non dama ne adversité bu am entre Pastef bu rafet bu mën a toog waxtaan que xam nga ne loolu. xalaatoon ni dafa nekk loo xam ne c'est utopie rek la da ngeen ko xalaat. xam mu nekk lu dëgg dina am. xam nga politique dafa am ni muy fonctionner xam nga grec yi ñoom ñoo créé politique ni muy fonctionner. Euh, politique mën na dafa dafa boo gisee Aristote naan c'est c'est c'est un art noble dafa am lu ko tax a jóg. mais léegi la politique soppi kanam ba am nu muy taxawee ndax démocratie bi ni ñu ko tëggee mu am ay euh, dérapage yu bari yoo xamante ni mu ngi ci biir démocratie ci boppam maintenant euh, politique. euh, du fermer la porte à des retrouvailles que rien n'interdit aujourd'hui que le président ne Macky Sall n'est plus candidat mais lan moo ko tere mu mu mu mu si chez politique bi bu yaakaaree ne candidat am dafay jàll dafay ndax boppam candidat am mën day ñëw ñu dóor ko bu baax a baax ak candidat bu fi mënti nekk nag candidat le candidat au président Macky Sall boobu euh, du dem maanaam dañ koy duma mais buñ ko dumaa ëllëg ki fi nekk président le président Macky Sall dafa war a collaborer ak moom maintenant kooku mën na nekk da yeewi askan wi bu fekkee ne moom li muy lebal yeewi askan wi loolu la ko yeewi askan wi di fay suba mais du neex kon nag le président Macky moom moo ñu jiite ñëpp mooy président dañ ko koy nangul euh, moom ci suñu jëmbi bopp lañu war a ñaan mu apaiser parce que dëkk bi dafa soxla calme même ñooñu mu jàpp noonu ay mille détenus politiques man am naa ci benn xarit mille personnes daay bu assurance la ma doon jaay ci Facebook la doon waxee noonu rek ñu dal ko jël yóbbu ko mais ay pères de famille yoo nga xamante ni defuñu ñu jàpp leen parce que ku ñu jàpp ci yow fekk ci ay cof ay ay ñu jàpp la mais est indiwul ñagas ñagas entre sénégalais ak la justice maanaam yomb yomb bu jàpp nit maanaam du jour au ñu jàpp la nu mu yombee te ñi nga xam ne y a plus de vingt personnes yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci ay manifestations ba léegi euh, jàppuñu ci kenn maanaam euh, li nga xam ne mooy cette loi boo xamante ne doo comprendre loi à double vitesse c'est ñu jàpp ñi nga xam ne ñooy def euh, ay vidéo wala ñu wax ne def propagande et appel à l'insurrection mais ñi nga xam ne dañoo faat ay xale ba léegi suñu leen voilà mais ki nga xamante ni mën nga xam fa mu ne parce que bi acte bi di defu numéro téléphone yi nga xamante ni ñoo fa ne mën nga leen tracer ñooñu yomb nañoo jàpp ñu bëri ñu ñu jàpp tey seen téléphone la ñu yoroon ci heure bi manifestation bi am mën nañ dem Sonatel xam ne ñii ñoo fa nekkoon dañ leen di jàpp ñu leen enquêté téye leen mais ñi rey fan nga leen di gisee ñan ñoo rey est-ce que suñu camp la mooy camp Yewwi Askan Wi wala camp nervi yi nga xamante ni ñoo nekkoon euh, ci euh, benn bokk yaakaar mais doo xam comme mënoo am nag euh, une une preuve parce que justice preuve la xam mënoo am une preuve pour mën a teg. daan kii ki nga xamante ni moo rey wala nga xam ne kii moo rey kii loolu doo mën lu dul nga bàyyeegum noonu maintenant pour nga mën a. li nga def fële ubbi enquête li nga def fële li nga def fële pour ak ay numéro de téléphone pour xam ne tel heure nit ñi ñii jaaroon nañ fii boo ko defoon tey. ci traçabilité ci heure yi ñu rey ñi ñu rey di war a mën a xam. Euh, mais gis nañu aussi fii au Parcelles Assainies ci en 2021 benn vidéo boo xam gis nañ koo xamante ne lu mu sol wala lu mu sol wane na ni force de l'ordre la mu mu tiré benn ndaw mais loolu c'était plus facile pour l'état du Sénégal na ko identifier. waaw xam nga euh, euh, duma ci sori. duma ne force de l'ordre moo rey parce que enquête lañu war a tii. non dama ne nu mu solo nuru na ko. voilà voilà mais nuru na ko war naa mën a nekk force de war naa mën a nekk keneen loolu enquête lañu war a mën a ci biir enquête bi la ñu mën a xamee kan moo rey ak kan moo reyul maintenant loolu mënuñu ci jël ay nit jàpp leen ci parce que tout simplement dañu bëgg euh, am ay am ay responsable ci ci ci ci ci meurtre yooyu maintenant ñi nga xamante nii nag ñoom la ñu tëj président Macky Sall na leen bàyyi ñu dem seen kër dem seen njaboot préparé ji màggalu Touba gii dem ko ñëpp Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp <laughs> nañu apaiser les consciences apaiser lépp ñëpp dal nañ yow daal yaa ngi yaa ngi woote dialogue yaa ngi bëgg ñu woote dialogue <laughs> alors Issa mais que war tey di doxee ñoom ci seen ci agenda ñoom ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi parce que boo xoolee ñoom amaguñ candidat euh, de l'autre côté muy opposition bi euh, dégguñu seen candidat yaa a même des combats yoo xam ne c'est des combats yu ñu na tenir instant bi nii nii nii si su élection yi jagee muy waxtaan waxtaanu fii fichier euh, waxtaan waxtaanu naka la ñuy organiser élection yooyu mais daanaka déggaguñ ko lu ci bare bari li ñuy faral di dégg mooy libération gi est du benn xam ne finalement dañ leen cee daane. non xam nga euh, le président Macky Sall kenn du ko suivre ci agenda maanaam politique mënoo ko def euh, di ré di réagir da ngay agir. Euh, yaa ngi di wax léegi amuñu candidat le président Gakou candidat la aux élections de 2024. donc non déclaré nañ suñu candidature yàgg na. su jàllee parrainage ñun pare nañu. non parrainage bi waxatuñ ko parrainage bi pour ñun formalité la. maanaam la nga xamante ni moo ñu daanoon injustement parce que mataloon nañu ay parrain man mii di wax ak yow ci ñu doon dugal parrain yi ci laa bokkoon ci ci ci ci ci machine yi parrain yi dañ koo amoon ba mu mat sëkk maintenant li xew mooy euh, on a choisi de candidats D'accord. donc candidats yooyu ñu choisir ñoom ñoo jàll donc dëggoon nañu Boun Abdallah Dionne naan cinq candidats la ñu am en réalité cinq yi njëkk a déposé ñoo jàll maintenant euh, euh, élection yi di ñëw suñu suñu parrainage pare nañ nga ñëwaat ci question Issa bi waaw voilà mm-hmm. maintenant Issa par rapport à la question. Euh, opposition bi am nañu candidat. ñun le président Malick Malick Gakou mooy suñu candidat. am na aussi yeneen.